Sud Matin Babacar Samb 6h30 dans nos studios sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM. Bonjour et bienvenue à la une de l'actualité. L'épidémie du nouveau coronavirus a fatigué en chiffres 18 cas confirmés dans la région, 1 mort, 6 des 8 districts sanitaires touchés. Le point avec Ngorsar dans nos éditions. Cambriolage à l'école Sambegay de Nyaning, c'est à Malikunda. Les malfaiteurs ont emporté des centaines de litres d'huile destinée à la cantine scolaire et la photocopie de l'établissement

asalaamaaleykum waaleykum salaam Babacar xibaar yi ñu leen fas yéene jukkil ci suba gi dina doon rek wàllu épidémie di mbasu Covid 19 bi ca Fatick bilan bi nii la tëddee euh, fukk ak juróom-ñetti cas yi nga xam ne confirmé nañ ko ca région ba kenn mu ca daal faatu euh, ci juróom-ñetti nag district yi di barabu fajukaay yi nañ juróom-benn yi daal daanaka amee nañu euh, feebar boobu ci xibaaru suba gi Ngor Sarr dina ci daal di nag dikk cong bi daal di nag am ca école Samba Gueye. yi bu Nianing foofee nag defkati lu ñaaw yi daanaka ay téeméeri téeméer ci ay litres yi litre dëwlin la ñu daal di nag jël yi nga xam ne dañ ko jagleeloon nag cantine scolaire ba ba ci photocopie bu nag école ba daan nañ koy rek yóbbu xibaaru suba gi Babacar Sow na ci daal di nag jukki euh, dañu ñëw itam ci bésu tey mooy ñaar fukki fan ci weeru juin ñuy màggal nag àdduna wërngal këpp bés bi ñu jëgleel way daw làqu yi euh, tey ji nag nee ñu àdduna bi buñ ko waxee ma ñaar ci ay millions ngi daanaka euh, ci àdduna bi ay réfugiés lañu waaye li ci gën a yéeme mooy rek tiers bi maanaam buñ ko xaajee ñett benn pàcc bi euh, daanaka réew yu amul doole moo leen di faral nag di euh, dalal te li ëpp ci ñooñee di faral di bàyyi ko seen réew di dem yeneen i réew xale yi ñoo ci daal di nag ëpp dinañ ci dikki ba ci Mali ak nag yëngu-yëngu yu fa daal di am opposition bi daanaka ni wàccaat ak doole ngir daal di wane seen ñàkk ànd ak doxalinu Ibrahima Boubacar Keita ci xibaaru suba ak i xibaar laata revue de presse bi revue de titre lañ koy dooree ak Adja Xabsa mu daal di ciy dikk ci kanam daal leen koy jukkil jaajëfal Pape Lay moo fare ci sottandikukaay bi mbokk yi jërë ngeen jëf ci déglu bi. Xabsa Elimane Bonjour et bienvenue à cette revue des titres que nous démarrons par Sud Quotidien, reprise des hostilités entre l'armée et le MFDC, l'escalade, libération, Covid-19, l'enchaînement macabre se poursuit au Sénégal. Le bilan passe à 79 morts après libération. Nous nous intéressons à la une de 24 heures. Pas de signe de ralentissement de la pandémie du Covid-19. Le Sénégal sur le fil. Là s'intéresse au non-paiement des salaires, motivation, mauvaises Des médecins menacent de quitter les centres de traitement de la Covid-19. Après la se place en l'enquête des classements forêt de Mbao OPA sur le poumon de Dakar. Les échos affaire Hiba Thiam, le juge de huitième cabinet, démarre les auditions lundi alors que la spéculation foncière aux alentours de l'AIBD intéresse également les échos. Énorme bradage foncier à Keur Mousse. Vox Populi titre ce matin sur scandale chez les Américains, escroquerie sénégalaise à l'ambassade des États-Unis après euh, populaire Vox Populi plutôt place à tribune tentative d'assassinat sur un avocat d'affaires québécois quatre sénégalais arrêtés au Canada euh, Soleil titre ce matin sur violence policière sur les Afro-Américains plongé dans une spirale meurtrière Stades le quotidien du sport titre ce matin sur Keita Baldé en son Sadio Mané pas difficile pour lui de devenir une légende et enfin sunu lamb 20 juin 2009 20 juin 2020 5 morts 23 blessés à l'écurie Walo 11 ans déjà les non-dits du tragique accident de Raoult c'est à Sénécartour di société bi ñu gën ràññee ci wàllu location oto ak dem dikk bi ci wàllu tourisme xam nañ ko nu ko jekk ci gunge réewum Sénégal ci développement Sénécartour gis-gis bu bees ci wàllu dem dikk bi. Sénécartour moo leen di may. li gën a fës ci këru yéenekaay asalaamaaleykum dal leen nag jàmm ci li gën a fës seetu yéenekaay yi dañu koy door ak Sud Quotidien bi waxtaanee wàllu jàmbarloo yi dooraat ci diggante armee bi ak waa MFDC ca Casamance bu ñu jugee ci euh, Sud dem ci euh, Libération ñoom nag li leen soxal mooy daal law bu gaaw bi nga xam ne moom la mbas mi di law suñu réew rawatina ñi nga xam ne daal ñooy loru ci mbir mi te bilang bi di yokku ba jàll ci euh, juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent fi mu toll nii bu ñu jugee ci Libération ñu jàll ci. ci 24 euh, heures ñoom it daal mbiru euh, mbas mi jaaxal leen lool ndax nee nañ gisuñ ci benn deltu gannaaw moo tax daal mbir yi euh, ëlëm lool waa 24 heures laas moom di wax wàllu mbas mi wante ci beneen anam nee na ñi nga xam ne ñooy médecins yi nag fi mu toll nii daal nee na bu ñu moyul danañ jóge ci centre yi nga xam ne fa la ñuy faj ñi amee wopp boobu boobule li ko waral nag mooy dañ leen yoreel ay salaire taxit li nga xam ne daal moo leen war a sawaral di motivation it gisuñu ko rawatina nag anam yi ñuy liggéey bi métti na lool bu ñu jugee ci laas ñu jàll ci euh, l'enquête di ñu waxtaanee wàllu euh, àllu mbaaw mile nga xam ne daal lu am solo la ci euh, diggu Ndakaar wante daal bu ñu moyul ak daal saax-saaxe bi ñuy saax-saaxe suuf bi foofu foofule du baax benn yoon les échos du ñu waxtaanee ñaari mbir ba ca njëkk jëmale ci wàllu ndem si yàlla Hiba Thiam ñu ñuy xamal ne juge juróom-ñetteelu cabinet bi Euh, altine ak jàmm la nar a door li nga xam ne mooy audition yi ñu des ak les échos ñoom it di ñu waxtaanee wàllu suuf rawatina ci wetu aéroport international Blaise Diagne bu jaas nee na foofu nag ca Kër Moussa daal ñu ngi saax saaxi bu baax a baax suuf si. buñ jugee ci les échos ñu jàll ci vox populi di ñu waxtaane li am ci ambassade bu États-Unis daal ay luubal la ñu fa nemmeeku tribune moom it di ñu waxtaane ay euh, doomi réewu Sénégal ñeent lañu ñoo xam ne dañ leen teg loxo ci Canada dañoo bëggoon faat bakkan benn ci ab avocat boo xam ne ci Québec boobule la fekk baax Le Soleil di waxtaane bu baax a baax fitna yi nga xam ne moom la takk der yi di tekk yenn ci ñi nga xam ne daal ay l'américain lañ baa ñoo xam ne seen ñu euh, bawoo woon ñu jàll ci stade stade bi jox tey ji euh, kàddu gi kii di Keita Balde mu tagg bu baax a baax kii di euh, Sadio maane ñu jeexale kook waa sunu lomb di ñu fàttali l'accident bu métti bi amoon jëmale ci waa écurie Waalo ci atum 2009 tey jii di ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ci weeru juin ñu koy fàttali nee na fukki at ak benn ginnaaw loolu le mbir yi daal mu ngi des ci xel yi ba tey dinañ ko gën a farañ fàcce ci revue de presse bi ci kanam.

6h45 dans nos studios sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, l'épidémie du nouveau coronavirus à Fatick est en chiffre 18 cas confirmés dans Le point avec Ngoursar dans ce journal. Cambriolage à l'école Samba des centaines de litres d'huile de la cantine scolaire et la photocopie de l'école, nous dira Ababacar Sow

Babacar Samb. Qui vous dit bonjour, bienvenue et sur FM Sen Radio pour vous informer. 18 cas confirmés de Covid-19 sont enregistrés dans l'ensemble des trois départements de la région de Fatick, dont un patient décédé à domicile, 8 cas euh, importés, 7 cas contacts positifs et 2 guérisons au niveau de l'hôpital régional. 6 des 8 districts sanitaires gérés euh, par la région médicale sont touchés avec 11 cas dans le seul district de Fatick, n'est-ce pas Ngoursar? Le coronavirus continue sa progression dans la région de Fatick malgré les efforts déployés par le comité régional de gestion des épidémies, les autorités locales, politiques et les partenaires en termes de produits sanitaires dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Le rapport du médecin chef régional fait état de 18 cas confirmés dans l'ensemble des trois départements de la région, dont 8 cas importés avec 3 qui sont venus de la sous-région ouest africaine, 7 cas contacts positifs et un patient décédé à domicile. 6 des 8 districts sanitaires gérés par la région médicale sont touchés. Il s'agit des districts sanitaires de Fatick, Gossas, Diakhao, Passy, Sokone et Diofior. Les districts de Founjoun et de Nyahara sont indemnes à ce jour. 11 cas confirmés de coronavirus sont détectés dans le seul district sanitaire de Fatick. 5 patients au niveau de la commune plus 6 élèves gendarmes au niveau de l'école des sous-officiers à la caserne générale Wali Faye. patients sont guéris, hospitalisés au centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional et deux autres au CTE de l'hôpital El Hadj Ibrahima de Kaolack. Aucun cas de transfert à ce jour. Les résultats des prélèvements effectués 11 personnes contacts du patient détecté à Senghor dans le district sanitaire de Sokone et ce effectué sur les 18 cas contacts du cas décédé à domicile au quartier Boubane dans la commune de Fatick sont en attente. La situation est donc devenue inquiétante au niveau de la région. Ngor Sarr, Sud FM. Ngor Sarr euh, parlons de la reprise euh, des enseignements apprentissages euh, euh, prévus euh, le 25 juin prochain le Hambourg les syndicats le QCMC et le G7 demandent aux enseignants de boycotter les classes en cas de non-respect du protocole sanitaire pour la réouverture des classes donc le 25 juin prochain pour les syndicalistes le péril est toujours là bien présent Diokel Faye le secrétaire général départemental du QCMC

que dans les travaux. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'exiger à ce que le protocole signé entre l'État et les syndicats, ce protocole sanitaire-là, nous voudrions que l'État fasse tous les efforts nécessaires pour que, comme le ministre l'avait dit, qu'un seul élément ne puisse manquer. Car il suffit qu'un seul élément manque du protocole pour que véritablement les enseignants ne puissent pas faire cours. Parce que nous ne demanderons jamais à nos enseignants courageux. Au juin, vous avez fait preuve de en acceptant de vous déplacer dans des conditions déplorables pour aller répondre à l'appel de l'État. L'État a repoussé. Aujourd'hui, il a encore pris la décision d'ouvrir les écoles le 25, même si cette décision, on a encore des craintes et l'État a pris sa décision d'ouvrir les écoles, mais en n'écoutant pas les syndicats, ne prenant pas en compte les critiques adressées par les partenaires par rapport à l'ouverture des écoles. Il faut que la responsabilité de l'État soit engagée entièrement. S'il y a réussite ou échec, cela ne doit nullement être incombé aux syndicats, mais seulement à l'État. C'est la raison pour laquelle la position des syndicats n'a pas Les commerçants de l'UNACOIS Yessal demandent l'arrêt des opérations de saisie des sachets plastiques initiées par le ministère de l'Environnement. 40 tonnes déjà euh, saisies d'une valeur de 120 millions de francs CFA et 156 euh, conteneurs euh, dédouanés estimés à 5 milliards 500 millions de francs CFA. Ces commerçants sollicitent une concertation avec le ministre qui tarde à reprendre donc à répondre à leurs courriers alors qu'ils se disent porteurs de solutions alternatives. Voici euh, Al Dian, directeur exécutif de l'Unacois Yessal. au micro de Amadou Moustapha Dia. Il y a des emballages plastiques à hauteur de 150 conteneurs. Hein. Et ils ont, ils eu à dédouaner ces produits, mais il y a eu des saisies venant des services du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. nous avons répertorié l'ensemble des victimes, je peux dire, parce que c'est pratiquement à travers plusieurs régions du Sénégal, mais surtout à Dakar, où des saisies. Nous avons convié donc la presse pour échanger sur ça et proposer des dans le domaine de l'environnement, il y a certainement des financements. Ces financements peuvent servir à acheter ces emballages et les gens qui avaient importé c'est une solution. L'autre solution, probablement, c'est d'accorder un délai, de ressusciter les saisies et d'accorder un délai aux commerçants pour écouler ces produits et qu'après, on puisse choisir une autre date où il y Je crois que c'est une possibilité. Ah, a un courrier qu'on avait adressé à monsieur le ministre. Certes, il n'y a pas encore eu de réponse écrite, mais le, directeur de l'environnement les, les opérations ont continué et nous déplorons cela. Et c'est, s'il y avait une solution à l'amiable, on n'aurait pas convoqué cette rencontre. Mais c'est parce que non seulement ça a perduré, des, des saisies ont été, ont été enregistrées dans d'autres villes, alors qu'au moment où on devait s'asseoir pour trouver une solution à l'amiable. Les saisies qui ont déjà opéré, c'est à hauteur de 120 millions, tandis que les conteneurs dédouanés entrés à l'intérieur du territoire, c'est cinq milliards virgule cinq donc après cent cinquante six conteneurs mais les commerçants qui les ne peuvent pas y avoir accès pour les commercialiser puisqu'il y a l'interdiction qui est venue à, partir du, avril alors que des concertations pouvaient être faites et je vous donne un exemple regardez le cas du ministre Abdou Karim tout ce qu'il est en train d'opérer au niveau de la ville au niveau de l'intérieur du pays c'est très difficile c'est très dur mais c'est parce qu'il devait, devait appeler à des concertations et que des solutions à l'amiable pouvaient être trouvées. Direction Nioro, c'est pour parler de la lutte contre la Covid-19. Les femmes des 15 communes du département de Nioro ont collecté euh, plus de 17 000 masques euh, collecte, mais également euh, redistribution de ces masques La cérémonie officielle de remise de masques a été présidée par le préfet du département de Nioro et du maire de la commune, Mamoudou Kamara. Dans le cadre de la covid les femmes leaders du département de Nioro ont collecté des masques pour ensuite les redistribuer à titre de contribution aux personnes vulnérables du département. L'honorable député Djemandiaïba, par ailleurs, point focal des femmes leaders du département de Nioro, s'explique. Une initiative de

femmes, mais également les féliciter et les encourager sur cette dynamique qu'elles ont manifestée lors de cette première phase de collecte des masques. Ce qui est de la distribution, nous avions reçu des orientations du niveau national, en l'occurrence de Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, des orientations qui nous demandaient de tenir compte des principes d'équité, de solidarité, mais également de prendre en charge des cibles vulnérables, au des quotas affectés à chaque commune, la commune, c'est-à-dire selon le nombre de villages qui composent cette commune. Nous avons tenu compte vraiment des cibles que les personnes vivant avec le handicap. Nous avons ciblé les mosquées, les églises. Nous allons tenir compte également des, des familles vulnérables, les conducteurs de Jakarta, euh, avec les lieux de distribution des semences, des intrants et des, des engrais, euh, certaines institutions avec les crédits de campagne. Toutes les femmes du département de Nioro se sont mobilisées pour mener une vaste campagne de sensibilisation sensibilisation afin de barrer la route à la COVID-19 dans tout le département de Nioro du Rip, Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara 5 de dollars soit plus de 60 milliards de francs CFA financement de l'association internationale de développement IDA un appui approuvé par la Banque mondiale pour le Sénégal à faire face à social et économique de la pandémie de la Covid-19 et à améliorer l'accès aux services pour les populations les plus vulnérables financement est constitué de 30 milliards 174 millions en dons et 30 milliards également 174 14 millions en crédit à verser en une seule tranche, un financement qui vient en appui euh, des ressources budgétaires de l'État qui doivent euh, donc couvrir le financement des mesures anti Cambriolage à l'école Samba Gueye de Nianing. primaire Samba Gueye de Nianing a été cambriolée. Un établissement scolaire où litres d'huile destinée à l'aide alimentaire de la cantine scolaire stockée dans un magasin de l'école et une machine photocopieuse ont été dérobées selon le directeur de l'école, Mamadou Ndiaye. À en le chef de l'établissement scolaire, l'école ne dispose pas de gardien pour la sécurité faute de moyens financiers. Une machine photocopieuse acquise pour un coût de francs CFA a été aussi emportée par les cambrioleurs, rajoute le directeur de l'école dépité par la situation. A signalé aussi que le riz que devait utiliser la cantine scolaire a été heureusement gardé chez le directeur de l'école. Samba est la deuxième école élémentaire publique du village de Nianing dans la commune de Malicounda, une école qui récemment était sur la sellette cri de cœur du corps enseignant qui, à travers ce cambriolage, demande beaucoup plus de sécurité à l'école primaire Samba de Nianing. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Au Mali, c'est la deuxième manifestation organisée par la coalition d'opposants, le M5, qui rassemble société civile, partis politiques d'opposition et religieux, a appelé chez les Maliens à descendre dans la rue hier vendredi au menu un seul mot d'ordre, réclamer la démission du président Ibeka au pouvoir depuis 2013. Cette manifestation s'annonçait plus tendue que la précédente. Et puis, euh, en France, réouverture des cinémas, centres de vacances, casinos et de jeu à partir de lundi 22 juin. Les activités des sports collectifs pourront également euh, le pays le cap euh, de contaminations selon euh, donc les informations officielles. C'est la fin de ce journal. Euh, dans quelques instants, vous aurez Euh, mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante kóllëre gi kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan 7 euh, heures bismilla ci xibaar yi. Adama euh, bokk na ci li ci gën a fës situation bi ci Covid 19 bi di mbas mi fële ca diwaanu nag Kaolack ak fukk ak juróom-ñetti cas yi ñu daal di nag amee ca département ñettee fa daal di nag nekk nañu nag ci juróom-ñetti fukki départ district sanitaire yi juróom-benn yi daal. daanaka enregistré nañu ñi amee feebar boobu dinañ ciy dikk ci ndorteelu xibaar yi lay doon dinañuy dem itam ci cambriolage bi daal di nag am foofa ca école Samba Gueye bu Nianing defkatu lu ñaaw yi daal di nag yóbbu ay litre diwlin yu bari waaye itam euh, photocopie ba nekk ca euh, l'école euh, boobule ba ci sax bés ba ñu jagleel wàllu nag réfugié yi xayma bañ ca daal di nag def àdduna wërngal këpp bari lool ay million ci ay nit li ci ëpp doole nee ñu ay xale lañu ci ay réew yi nga xam ne nag daanaka. bariwuñu doole ñoom ñoo leen di faral nag di dalal mu yàpp jafe-jafe dinañ ci daal di jukki ci bés boobu boobule eh, dinañ ci toftal yeneen yi xibaar laata ñu dikk nag ci wàllu revue de presse bi ànd ceeg Habsa Iliman Wane xibaar yi daal di buur Papa Abdoulaye Dieye moo ne ci sottandikukaay bi faramfànce fànce gi neeskis lay doon Adama Ndione. Eh, ci kàddu gi ñu daal di koy nag doore ak fukk ak juróom ñetti cas yi ñu daal di nag ne confirmé ne am na ci wàllu mbas mi foofee ca eh, Fatick ci ñetti département yi mu daal di nag eh, amee nee ñu nag am na kenn ka ca daal di faatu ca këram sax la daal di faatoo juróom ñetti cas yi nga xam ne cas importe la bàyyi ko feneen am na yeneen juróom ñaar yoo xam ne ay cas contact la positif ñaar faj nañ leen ba ñu daal di nag wér ci hôpital régional ba ci district sanitaire. critères yi barab ba amee yëpp war a toll ci juróom-ñett nañu juróom benn yi daal eh, gis nañ ne daal nemmeeku nañ ko ko fa amee feebar ba ba tax nag eh, région médical ba eh, nga xam ne lu war toll ci fukk ak benn ci ay ka daal di nañ koy nemmeeku bilan boobu waa Fatick daal di def ni ki démb Ngor Sarr. Mbass maa ngi wéy di la woo ci biir diwaanu Fatick donte sax ay na ay jéego yu am solo bu comité régional bu saytu wàllu ak autorité locale yeeg politique. gi ak partenaires yi def jëmale ko ci wàllum jumtukaay yu ñu war a mën a xeexe mbas minimal rapport bi nga xamante ne moom la médecin chef régional joxe li ci feeñ mooy fukki nit ak juróom-ñett yoo xamante ne feebar bi dal na leen ci ñetti département yi nekk ci diwaan wi juróom-ñetti yi doon li ñuy wax kaa importé ci ñetti ci seen biir bàyyeekoo ci réew bu nekk ci région ouest africaine am juróom ñaari kaa yoo xamante ne kaa contact yu mujje positif ak koo xamante ne mu ngi ñàkk bakkanam ci biir këram juróom benn ci juróom ñetti district sanitaire yi nga xamante ne moom la région médicale géré ñëpp it jot nañ ci mbas mi muy district sanitaire bu Fatick bu Gossas Jaxaw Passy Sokone ak Diofior district sanitaire bu Foundiougne ak bu Niakhar rek ñoo ci jotagul fukki cas ak benn yoo xamante ne mbas mee leen dal itam ñu ngi leen détecté ci biir district sanitaire bu Fatick juróom yi bàyyeekoo ci biir commune bi juróom mbenn yi doon ay élèves gendarme yu nekk ci école des sous-officiers bu caserne général walifay Faye ñatti nit jot nañu wër nag fukk ak ñaar ba léegi ñu nekk ci centre de traitement épidémie bu hôpital régional bu Fatick yeneen ñaar yi nekk ci CTO e bu hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack ba léegi itam amul kenn koo xamante ne jot nañ ko jàllale ci beneen diiwaan prélèvement yi ñu def ci fukki nit ak benn yi nga xamante ne jotoon nañu laale ak ki nga xamante ne mu ngi feeñ ci Senghor te mu bokk ci district sanitaire bu Sokone ak prélèvement yi ñu def ci yeneen fukki nit ak juróom-ñett yi nga xamante ne jotoon nañ jege ki nga xamante ne moom moo ñàkkee bakkanam ci mbuubaan benn quartier bu nekk fii ci biir Fatick ba léegi ñu ngi leen di xaar mbir mi nag jéggi na dayoo lool fii ci diwaan wi Ngor Sarr Fatick Sud FM nga ñu dem ci waa CUSEMS si ñiy fare Mbour ñoom ñiy sàkku ci jàngalekat yi ne bu kenn dem ci ubbi teg l'école gi bu fekkee ne daal matuwaay yi war yëpp ci wàllu euh, wérgu yaram wàllu santé bi jël nañu ko euh, jëluñu ko euh, ngir laata ñuy ubbiwaat nag l'école yi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ni ko gouvernement bi daal di namee ñu jàpp ne dogal boobu ñu jël daanaka seen dogalu bopp la kenn boolewu leen ca ba tax syndicat bi jàpp ne musiba mbas mi mu ngi fi ba tey Jokel Faye mooy secrétaire général bu département bu bu CUSEMS ci département bu Mbour ñu déglu ko ak Babacar Sow. bi nga xamante ne ni état du Sénégal programmé na ko. pour ñaar fukki fan ak juróom. ci weer wi ñu nekk. dañu bëggoon leeral. ci bopp sénégalais yëpp. ci bopp jàngalekat yëpp. ci bopp citoyen yëpp yi nekk Sénégal. wax leen ni position syndicat yi. bu CUSEMS ak bu g position yi mosta changé. état du Sénégal moo ñu employé. moo jëloon jëloon décision le deux ne day ubbi ay école dem ba ci biir mu gis loo xamante ne nii xëy na moo tax ba mënta ubbi école yi mu repousser date bi moo jëlaat décision mi ne day ubbi école yi le vingt cinq ñun mënuñu dara budul en tant que suñu employeur bu ñu woon ne ñu dem leen liggéeyi mënuñu dara budul dem liggéeyi waaye nag dinañu exiger que protocole sanitaire bi nga xamante ne nii moom la état bi teg ci table bi te ministre de l'éducation nationale ne protocole boobu bu amee lenn loo xamante ne ni manqué na ci bu respecté ñun dinañu respecté loolu nga xamante ni moom la ministre bi wax à la lettre le vingt ñu ngi ñaan jàngalekatu Sénégal yépp ku ci ne na nga taxaw ci sa poste di xaar ñu sone nga dugg sa classe bés boo seetloo nag ni protocole bi am na lenn lu ci manqué am nga droit nga respecté sa décision ministre bañ a jàngale ñun en tant que syndicat décider ubbi école mbaa tëj école moomuñu ko yeyoowuñu ko état moom la loolu yeyool état moo jël décision ubbi ay école léegi nag comme moo dégluwu ci kenn mbaa bu dégloo ay nit mais déglu boo xamante ne nii teniroo compte ci li ñu wax la di entêté wu ne day ubbi ay école am ah ñun mënuñu budul suivre ko mënuñu budul accompagner ko waaye di wane ni bés boo demee ba nga xamante ne ni ubbite école bi échoué na bu kenn wax ne ni jàngalekat yi ñoo tax ba nga xamante ne nii njàng mënta am mbas mi jógee gu fi na mu fa nekk woon ba ñu tëj école yi def fee gën a nekk ci condition yu gën a mitti ñu daal di ñëw ci commerçant yu UNACOIS Yeesal ñoom ñi sàkku nag ñu daal di dakkal opération yi ñuy def te mooy rek euh, ñu tekk loxo euh, mbuusu plastique yi nga xam ne ministère euh, environnement ñoo def li ni mel nee ñu nag ñeen fukk ci ay tonnes yi ñu daal di tegagum loxo bañ ko xayma ci wàllu koppar wala na ci téeméer ak ñaar fukk million am na yeneen itam téeméer ak juróom fukk ak juróom benn conteneur yoo xam ne dañ leen ciy dédouané juróomi milliards ak genn wàll daanaka ñu daal di koy fay commerçant yooyu ñu daal di sàkku nag ay waxtaan dox seen digg ak ministère bi euh, nga xam ne boobale ñu ngi koy bind courrier waaye itam dafa daal di taate ngir daal leen cey rek euh, tontu ba tax ñu jàpp ne faaw ñu wut ci beneen pexe kii di Cheikh Cissé mooy président UNACOIS Yeesal ñu déglu ko ak Amadou Moustapha Dia. Karim Sall nag mën a luwaa la yor moom su xasee yor luwaa day appliqué mu xëy rek ne bépp nit bu fi doon di jaay mbuus fii ci réew waxtaan nañoo bind nañ ko lettre waxtaan nañoo ak moom bëgg ko war solution parce que ñun loi duñ ko contre ñun dañuy respecter loi parce que man ak Karim ak keneen ñoo yem ci loi ñun ñëpp loi mu nekk suñ kaw waaye nag bu fekkee da nga tàmbali dara am ñu la wutal solution da ngay seeti leen nanguwul loolu ñu tàmbali waxtaan yi ñu dégg ko ci dëkk yëpp dégg ko Thiès dégg ko Tambacounda Kaolack Kédougou dégg ko Ziguinchor dégg ko également Sédhiou Dakar gis ngeen yéen man ni ngeen ko gisandoo amul marché bu mu des di ramasser mbuus yi loolu nag moo tax ñu wootee conférence de presse monsieur le président suñ ko wooyee dana nu jël suñ ko soxlaa danañ ko gis mais moment bi nga xam ne ay audience am joxeegu ko loolu moo tax ñu def conférence de presse pour yóbbante ko ko pour presse bi wax ko ko mu xam ne Karim Sall dafa tëj ay buntam te mi ngi rey suñuy commerçant loolu duñ ko nangu loolu moo tax ma def conférence de presse bépp ministre bu ma bind dana ma tontu ku ma ñaan audience nga jox man damay régler problème moo ma gënal def conférence de mais <clears throat> te ñun bëgguñu lu yàq réew mi mais mënul jël ay milliards di ko lakk relance économique ba ko débb ak moom mu xëy di bëgg a lakk économie loolu mënuñu ko nangu tey mënuñu nangu ëllëg cinq milliards ak genn mais kenn mësu ko gis moom xamul luy milliard bu ko xam ne daal ko solution mu toroxal yàlla le président Macky du ma wax ne danañu recevoir parce que commencé mais xam naa ne dana ko wax mu recevoir bi suñu recevoir solution dana am ndaxte ñun duñ ko ne bàyyi loi bi mais mën nañ ko indi solution boo xam ne bii li muy dana ko am commerçant li nga xam ne recensé nañ ko douane la jaaree am nañ fichier bi su leen neexee ñu recensé ko jël milliards yooyu delloo ko commerçant yi jël seen marché yóbbu buñ ko dee lakk wala ñu di ko suul benn la plan B bi mooy ñu defal ñu benn délai boo xam ne réew mi dootoo fi gis mbuus bu loolu amee ñun ñëpp ñu nekk ak moom di xeex mbuus yi kenn duutu fi indi mbuus kenn dédu ko dédouañe loolu mooy plan B bi solution beneen bi nga xam dañ ko wutale mën nañ ko wutal loo xam ne tam am nañu ay partenaire un peu partout ñoo xam ne dañuy jël mbuus yi indi ci machine yoo xam ne daf séerul dara dañ ko ci def rek mu seey moom daal suñu wooyee solution dana am suñu woowul nag continuer di jël mbuus yi moom duñ ko nangu mukk ci àddina jaral xeex beneen mooy wàllu Covid 19 bi ci beneen anam jigéen yi fare ci fukk juróom ci ay communes yu département bu Nioro daal di dajale lu war a toll ci fukk ak euh, juróom-ñaar ci ay junni ci ay masque ngir daal di koy nag euh, séddale ci ay nit ñi nga xam ne seen loxo jotul seen i gannaaw euh, xew-xew boobu ñu doon jébbale sax masque yi nga xam ne préfet bi daal na koy rek jiite préfet bu département bu Nioro ak maire bu commune ba mu ngi amee ci teewaayu Mamadou Camara. jigéen ñi nekk ci département ñooro dajale nañ ay masques yu bari loolu nag mi ngi am ci teewaayu préfet bu département Nioro di Abdoul Aziz Diagne honorable député Jéema Ndiaye Ba moom mooy point focalu jigéen ñi nekk ci département Nioro. initiative bi nga xam ne madame la ministre de la femme de la famille Ndeye Saly Diop Dieng am na ko ci gën a fësal taxawaayu jigéen ñi ci xeexu mbas mi madame la ministre bi mu defee initiative bi dafa tànn ay ndaw yoo xam ne ñooy nekk ci région yi ñun ci million masques yi ñu waroon joxe Sénégal département Nioro sasoon nañ ñu fukki junne ak juróom-ñaar ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer romb nañ ko ba am euh, fukki junne ak juróom-ñeent yu teg juróom-ñaar téeméer ak lu topp naa ne ñun lañ ñu sasoon romb nañ ko suñ koy romb nag dafa fekk ni ànd boole xool yi moo tax loolu ñu mën ko ñiñ koy jox ah, commune yi yemuñ ndax di nga gis commune boo xam ne ñaar fukki dëkk la am ak ñaar am commune boo xam ne am na juróom-benn fukki dëkk ak juróom-benn cërëb ba tax na ñi am ñaar fukki dëkk ak ñaar lañ tollool jox nañ leen ko ñi am ñaar fukki dëkk ñi am fanweeri juróom nangam wala juróom-benn fukki dëkk ak nangam ñoom itam lañ tollool jox nañ leen ko te yaakaar naa ne liggéey la bu mëcc ayib boo xam ne dañ ci waxtaan ak ñëpp ba génnee li ñu génnee tey dañ ni am na ñoo xam ne il faut ñu jalgar leen seen cëru bopp muy ñi nga xam ne waaye laago yi la waaye laago yi bi ñuy joxee pour masque yi dañoo am taxawaay bu mat sëkk ba ñooñu aussi rafet na ñu delloo leen cër muy jàngu bi muy euh, jàkka yeeg jumaa yi muy bërëb yi nga xam ne dañ fay dem di fa fayeeku wala bërëb yi nga xam ne fay dem ci seko yeeg yooyu pour jël fa ay jiw ci département Nioro nee nañ def nañ benn say ñu fas ne dugg ci askan wi rawatina ba ci booru frontière ba pour di yee nit ñi ci loraange yi nga xam ne mbas mi mun na koo indi Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara lu war a toll ci téeméeri million ci ay ak dollar Euh, ñu xayma ko ci juróom benn fukk milliards ci suñu rek koppar financement bu association internationale euh, bu développement di idaa mu ne ab jàppale bi nga xam ne nag euh, banque mondiale daal na koy rek rafetlu ngir daal di dimbali Sénégal mu daal di nag jàkkaarloo ak jeexital yi nga xam ne am na ci wàllu social ak ci wàllu nag koom-koom ci xeex bu muy xeex nag Covid 19 boobule dina tax itam mu gën a yokk nit ñi mën jot ci. ci service yi aju ci wàllu nag euh, paj mi euh, rawatina ñi amul rek euh, doole financement boobu nekk war rek matal fanweer ci ay milliards yu tegal ci ay millions yu bëri mooy jàppale bi nga xam ne yeneen fanweer yi millions yi ak yi tegal wàllu crédit lañ koy daal di nag def ñu war ko nag verser ay pàcc yu nag wute ñu daal di jukki ci nag cambriolage bi am ci école Samba Gueye mu nga ca ñaaning ca Mbour Euh, yi nga xam ne nag defkatulu lu ñaaw yi yóbbu nañu lu bari ci ay litre dëwlin ay téeméeri téeméer sax lañ ca daal di tudd photocopie bu mag bu fa nekk daanaka itam. bu école ba daal nañ ko yóbbu Babacar Sow. école primaire Samba Gueye nekk ca Nianing ay Samba booy dugg nañ fa sàcc fa lu toll ci liitaru diwlin joo xam ni dañu ko waroon jëfandikoo ci cantine scolaire bi ñu dencoon ko ci ab magasin bu nekk ci l'école bi am na machine photocopieuse boo xam ni itam dañu ko sàccaale suñu sukkandikoo ci directeur l'école bi Mamadou Ndiaye ci li mu yëy yàbbi nee na l'école bi amul gardien ndaxte seeni koppar matul machine école bi lool yokk ci ni mi ngi sant yàlla ndaxte ceeb bi nga xamee ni moom la waroon a togg ci cantine scolaire bi këram la ko denc l'école Samba Gueye di ñaareelu bërëb bi jàngalekaay bu nekk ci dëkkub Nianing ci commune bu Malicounda l'école la bi nga xam ni yàggul benn yoon coow toppoon na leen ndaxte président association parents d'élèves bi dafa daloon ci kaw benn maître arabe ba gaañ ko di loo xam ne lii ni woon na kur ci dëkk bi ba tax sax ñi nga xamee ni ñooy jàngale ci l'école boobee yëkkati wala ay kàddu ni daal ñi ngi ñaan kaaraange ci l'école primaire Samba Gueye bu Nianing soo Sow dañ ca jokk ak fii ci Mbour pour Sud FM. Eh, Babacar jeexale ko nag ak euh, lettre saisine bi nga xam ne nag kii di député ay Mbodj ñu ngi ci doon interpellé ministre bi ñu dénk wàllu euh, santé action sociale boobu ne nag bataaxal daanaka teerseegul euh, ca tabalu nag assemblée nationale tabalu bu conférence président ba loolu nag kii di honorable député Madiaye Ba moo ko daal di nag xamle présidente. lu commission yi ñuy dénk wàllu nag loi bu assemblée nee na nag ñaawlu na li nga xam ne mooy yenn ci ay menaces yi ñu daal di nag jëmee ci kooku di ayda Aïda euh, Mbodj Diema Ndiaye euh, Ba nekk présidente bu commission loi ak décentralisation ba ci wàllu travail ak droits humains ci assemblée nationale ñu déglu ko ak Mamadou Camara. honorable député Aïda Mbodj mooy rafetlu taxawaayam la ci assemblée nationale koo xam ni vraiment liggéey ba tax mu ñëw assemblée mu ngi koy doxal ndax askan wee ko fa taaj lii mu wax itam yoon moo ko ko may ndax article 93 bu règlement intérieur bu assemblée nationale moo ko may tey lu mel nii mu mën ko def ni ngeen ko déggee man tam noonu laa ko déggee te man membre conférence président laa te démb conférence président amoon na waaye ci li ñu ma doon wax waxuñ ma ni jot nañ lettre bi mën na am ni lettre bi dem na mën na am ni lettre bi demul waaye nag lu ci mënta nekk su fekkee ni jaarale nañ ko ci yoon te yaakaar naa ne honorable député mi nga xam ne def na ñetti mandat député yaakaar naa ne xam na li ci yoon wax ba dina ko jaarale yoon ba lettre ba jaar fa mu a jaar bañ war ko doxalee nañ ko war a doxalee ndax it loo gis teg ñi di ko def ci assemblée nationale si mu ngi sukkandiku ci règlement intérieur su fekkee ni respecté na règlement bi ak loi bi yaakaar naa ni président assemblée nationale incha dina ko def ndax tey muy ministre muy président de la république ñoom ñëpp war na ñëw ñëw jàkkaarloog ñun waa assemblée nationale ci cadre loi de ratification bi wax ñu li nga xam ne moom lañ leen joxoon muy loi d'habilitation ko defee menaces menacé la xëy na ba mu ko defee rëccu na ko waaye li am solo mooy euh, nee na saisir na ministre Aly Ngouille Ndiaye ñuy rafetlu aussi vraiment ministre Aly Ngouille Ndiaye ci accessibilité am parce que nee na ba mu ko yónnee message rek la ko tontu ni taxawaay ba ci état bi war a taxaw nañ ko ci taxaw pour protéger ko ñun ñëpp ñuy rafetlu ma accessibilité ak disponibilité ministre Aly Ngouille Ndiaye te yaakaar naa ni ci état de droit la nekk menace rek taxul ñu ni dinañ ko gaañ wala dinañ ko def dara bon nag yaakaar naa ne euh, gouvernement Sénégal dinañ ci taxaw ba protection ba war moom en tant que député ñu def ko ci Adama Ndione ah, mbokk yi xarit yi fi la ñuy wax yéen ci pàcc bu njëkk Sud Matin. Sud FM l'info c'est ici. Sud Matin. Bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec la lettre de saisine pour interpeller de la Santé et de l'Action sociale sur la gestion de la Covid-19, une lettre introduite par l'honorable député Aïda Mbouch, une lettre également qui n'a pas encore atterri à la table de la conférence des présidents, l'annonce est de l'honorable député Dieye Mandiaye Ba, président euh, euh, de la commission des lois euh, donc à l'Assemblée nationale. Toutefois, elle euh, dénonce et regrette euh, les menaces proférées euh, s'il y a lieu à l'endroit de Aïda Mbodj. Euh, Diema Ndiaye Ba, présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, que nous écoutons au micro de Mamadou Camara. Je voulais saluer vraiment cette grande dame, ma collègue, la présidente Aïda Mbodj. Je pense que son ancienneté au niveau du Parlement, elle a fait trois législatures et qu'elle sait ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire. j'apprécie qu'elle ait joué pleinement son rôle de députée, de représentant du peuple. une conférence des présidents. Malheureusement, je m'étais fait mais au compte rendu, je n'ai le compte rendu qu'on ait au niveau de la conférence des présidents, cette lettre de saisine de Madame le, le député Aydemboud. Elle a le plein droit de le faire parce que c'est l'article 93 du règlement intérieur qui lui permet de procéder ainsi. Et si toutes les voies légales et réglementaires ont été je pense que rien propose à ce que le président de l'Assemblée nationale, autour du bureau de l'Assemblée nationale et de la conférence des présidents, puisse euh, demander au ministre en charge de la santé de venir répondre. Maintenant, j'ai appris, comme vous, à travers la presse, que Madame le député a saisi le président de l'Assemblée nationale, mais moi, en tant que membre de la conférence des présidents, je n'ai pas encore été informé ni saisi de cette demande de Madame le député Aydembo, que je respecte beaucoup. C'est une question d'appréciation. Vous voyez que savoir parce que j'ai salué vraiment cette grande dame dans toute sa grandeur, dans toute la plénitude des missions qui lui sont confiées par le peuple sénégalais. Donc peut-être d'autres ont un autre comportement, ce n'est pas le comportement de tous les Sénégalais. Donc je ne voudrais pas qu'on puisse uniformiser à travers ce comportement euh, pour, pour, quand même dire qu'elle a écouté. Il y a eu une réaction positive du ministre de l'Intérieur et c'est ça qui est je pense que Madame euh, le député Aydembourg ne doit rien par rapport à ces cette menace parce que nous avons une république, nous avons un état de droit. Les autorités de ce pays vont faire ce qui est euh, normal. Elle n'a fait que son devoir et donc je pense qu'elle n'a pas le droit de recevoir des menaces quand elle fait son devoir et elle est en train de faire son devoir de députée. Et puis, retenez que le bureau politique de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail a cité a euh, tenu une réunion par vision conférence euh, le 13 juin sous la présidence donc euh, du compagnon Abdoul euh, Mbaye. Examinant ainsi l'actualité nationale, le bureau politique regrette l'échec noté dans la gestion de la pandémie Covid-19, dénonçant les insuffisances d'un plan global de communication qui n'est pas parvenu à convaincre les populations de l'importance des risques et de l'importance également des gestes barrières et de distanciation euh, pour s'en protéger. Après l'échec de la première tentative de réouverture des classes, le bureau euh, politique euh, réclame davantage de professionnalisme dans l'organisation l'organisation de la reprise scolaire selon un communiqué qui nous est parvenu. 18 cas confirmés de Covid-19 enregistrés dans l'ensemble des trois départements de la région de Fatick, dont un patient décédé à domicile, 8 cas importés, 7 cas contacts positifs et 2 guérisons au niveau de l'hôpital régional. 6 des 8 districts sanitaires gérés euh, par la région médicale sont touchés avec 11 cas dans le seul district de Fatick, nous dit Le coronavirus continue sa progression dans la région de Fatick les efforts déployés par le comité régional de gestion des épidémies, les autorités locales, politiques et les partenaires en termes de produits sanitaires dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Le rapport du médecin chef régional fait état de 18 cas confirmés dans l'ensemble des trois départements de la région, dont 8 cas importés avec 3 qui sont venus de la sous-région ouest africaine, 7 cas contacts positifs et un patient décédé à domicile. 6 des 8 districts sanitaires gérés par la région médicale sont touchés. Il s'agit des districts sanitaires de Fatick, Gossas, Diakhao, Passy, Sokone et Diofior. Les districts de Fungyuny et de Nyahara sont indemnes à ce jour. 11 cas confirmés de coronavirus sont détectés dans le seul district sanitaire de Fatick. 5 patients au niveau de la commune plus 6 élèves gendarmes au niveau de l'école des sous-officiers à la caserne générale Wali Faye. Trois patients sont guéris, 12 hospitalisés au centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional et deux autres au CT de l'hôpital El la Ibrahima Niass de Kaolack. Aucun cas de transfert à ce jour. Les résultats des prélèvements effectués sur 11 personnes contacts du patient détecté à Senghor dans le district sanitaire de Sokone et ceux effectués sur les 18 cas contacts du cas décédé à domicile au quartier Boubane dans la commune de Fatick La situation est donc devenue inquiétante au niveau de la région. Ngor Sarr, Ngor Sarr, malgré la propagation du nouveau coronavirus, la réouverture des classes est programmée pour le 25 juin prochain. Une réouverture donc avec euh, toutes les polémiques de à Mbour. Le QCMC et le G7 demandent aux enseignants de boycotter les classes en cas de non-respect du protocole sanitaire pour la réouverture donc des classes le 25 juin, qui est une décision le péril est toujours là, bien présent. Diokel le secrétaire général départemental du QCMC et coordonnateur du G7 micro de Babacar 5 juin nous voudrions attirer l'attention de tous les Sénégalais pour leur dire que la position des syndicats du G7 n'a pas varié d'un seul iota. La décision d'ouvrir une école ou bien de fermer une école n'incombe pas aux syndicats. C'est une décision du gouvernement du Sénégal. Nous, nous ne sommes que des agents de l'État. L'État a pris la décision d'ouvrir ces écoles. Alors, en tant que travailleurs, nous ne devons faire que d'aller travailler. La seule secteur-là, nous voudrions que l'État fasse tous les efforts nécessaires pour que, comme le ministre l'avait dit, qu'un seul élément ne puisse manquer. Car il suffit qu'un seul élément manque du protocole pour véritablement les enseignants ne puissent pas faire cours. Pourquoi Parce que nous ne demanderons jamais à nos enseignants de faire l'impossible. Vous avez été braves, vous avez été courageux. Au juin, vous avez fait preuve de patriotisme en acceptant de pour aller répondre à l'appel de l'État. L'État a repoussé. Aujourd'hui, il a encore pris la décision d'ouvrir les écoles le même si cette décision, on a encore des craintes et l'État a pris sa décision d'ouvrir les écoles, mais en n'écoutant pas les syndics, ne prenant pas en compte les critiques adressées par les partenaires par rapport à l'ouverture des écoles. Il faut que la responsabilité de l'État soit engagée entièrement. S'il y a réussite ou échec, cela ne doit nullement être incombé aux syndicats, mais seulement à l'État. C'est la raison pour laquelle la position des syndicats Les commerçants de l'Unacois Yessel demandent l'arrêt des opérations de saisie des sachets plastiques initiées par le ministère de l'Environnement. 40 tonnes déjà saisies d'une valeur de 120 millions et 156 conteneurs de douane estimés à Ces commerçants sollicitent une concertation avec le ministre qui tarde à répondre à leur courrier alors qu'ils se disent porteurs de solutions alternatives. Voici Alla Dieng, directeur exécutif de l'Unacois Yessal au micro d'Amadou Moustapha Dieng. Il y a des commerçants qui avaient importé des emballages plastiques à hauteur de 150 et ils ils ont eu à dédouaner ces produits, mais il y a eu des saisies venant des services du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. nous avons répertorié l'ensemble des victimes, je peux dire, parce que c'est pratiquement à travers plusieurs régions du Sénégal, mais surtout à Dakar, où des saisies. Nous avons convié donc la presse pour échanger sur ça et proposer des solutions Nations Unies dans le domaine de l'environnement, il y a certainement des Ces financements peuvent servir à acheter ces emballages et les détruire et payer les, gens qui avaient importé c'est une solution. L'autre solution, probablement, c'est d'accorder un délai, de ressusciter les saisies et d'accorder un délai aux commerçants pour écouler ces produits et qu'après, on puisse choisir une autre date où il y les arrêts de ces, de ces Je crois que c'est une possibilité. Ah, il y a un courrier qu'on avait adressé à monsieur le ministre. Certes, il n'y a pas encore eu de réponse écrite, mais le, directeur On a les, les opérations ont continué et nous déplorons cela. Et c'est, s'il y avait une solution à l'amiable, on n'aurait pas convoqué cette rencontre. Mais c'est parce que non seulement ça a perduré, des, des saisies ont été, ont été enregistrées dans d'autres villes, alors qu'au moment où on devait s'asseoir pour trouver une solution à l'amiable. Les saisies qui ont déjà opéré, c'est à hauteur de 120 millions, tandis que les conteneurs dédouanés entrés à l'intérieur du territoire, c'est 5 milliards virgule 5 donc après 156 conteneurs mais les commerçants qui les avaient ne peuvent pas y avoir accès pour les commercialiser puisqu'il y a l'interdiction qui est venue euh, avril alors que des concertations pouvaient être faites et je vous donne un exemple regardez le cas du ministre Abdou Karim tout ce qu'il est en train d'opérer au niveau de la ville au niveau de l'intérieur du pays c'est très difficile c'est très dur mais c'est parce qu'il avait devait, devait appeler à des concertations et que des la lutte contre la Covid-19. Les femmes des 15 communes du département de Nioro ont collecté plus de 17 000 masques pour ensuite les redistribuer titre de contribution personnes vulnérables. La cérémonie officielle de remise de masques a été présidée par le département de Nioro et Euh, de la commune Mamadou Camara. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les femmes leaders du département de Nioro ont collecté des masques pour ensuite les redistribuer à titre de contribution aux personnes vulnérables du département. L'honorable député Diema Ndiaye Ba, par ailleurs, point focal des femmes leaders du département de Nioro, s'explique. Une initiative de Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Il s'agissait de procéder à

lors de cette première phase de collecte des masques. Ce qui est de la distribution, nous avions reçu des orientations du niveau national, en l'occurrence de Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, des orientations qui nous demandaient de tenir compte des principes d'équité, de solidarité, mais également de prendre en charge des cibles vulnérables au-delà des quotas affectés à chaque commune selon le poids démographique de la commune, c'est-à-dire selon le de villages qui composent telles que les personnes vivant avec le handicap. Nous avons ciblé les mosquées, les églises. Nous allons tenir des, des familles vulnérables, les conducteurs de Jakarta. Euh, avec les lieux de distribution des semences, des intrants et des, et des engrais. Euh, certaines institutions avec les crédits de campagne. Toutes les femmes de Nioro se sont mobilisées pour campagne de sensibilisation afin de la à la Nioro du Rip Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou euh, Camara retenez que donc cent millions de dollars soit plus de soixante milliards de francs CFA c'est le financement de l'association internationale de développement IDA euh, donc euh, un appui approuvé par la Banque mondiale pour aider le Sénégal à faire face à l'impact social et économique de la pandémie de la Covid-19 et à améliorer l'accès aux services euh, pour les populations les plus vulnérables. Ce financement est constitué de 30 milliards 174 millions en dons et 30 milliards également 174 millions en crédits versés en une seule tranche. Un financement qui vient en appui des ressources budgétaires de l'État qui doivent couvrir le financement des mesures anti-crise. La Société sénégalaise des droits d'auteur et des droits voisins SODA va décider de sursoir son assemblée générale ordinaire annuelle à cause de la pandémie de covid 2019 l'assemblée générale ordinaire prévue euh, par les statuts et qui euh, donc euh, coïncidera cette année avec la date du 25 juin de manière les mesures tendant à la propagation de la Covid-19 parmi lesquelles l'interdiction de rassemblement lit-on dans un communiqué conjoint du directeur gérant Ali Bathily et la présidente de la Woche. Parlons du cambriolage à l'école Samba Gueye de Nianing. Les malfaiteurs ont emporté des, euh, des centaines de litres d'huile destinés à la cantine scolaire et la photocopie de l'école. Babacar Sow. L'école primaire Samba Gueye de Nianing a été cambriolée. Un établissement scolaire où 800 litres d'huile destinée à l'aide alimentaire de la cantine scolaire stockée dans un magasin de l'école et une machine photocopieuse ont été dérobées selon le directeur élèves de l'établissement scolaire, l'école ne dispose pas de gardien pour la sécurité faute de moyens financiers. Une machine photocopieuse acquise pour un coût de francs CFA a été aussi emportée par les cambrioleurs, rajoute le directeur de l'école dépité par la situation. A signalé aussi que le riz que devait utiliser la cantine scolaire a été heureusement gardé chez le directeur de l'école. Sambe est la deuxième école élémentaire publique du village publique sur un maître arabe par le président de l'association des parents d'élèves. Un cri de cœur du corps enseignant qui, à travers ce cambriolage, demande beaucoup plus de sécurité à l'école primaire Samba Gueye de Nianing. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Babacar Sow, ce juin est célébré la journée mondiale des réfugiés. Le monde compte près de 26 millions de réfugiés, 4 millions de demandeurs d'asile en attente de statut. 26 millions de personnes déplacées dans leur propre pays, soit près de 79 millions de personnes qui euh, donc euh, qui ont fui la guerre, les persécutions ou les conflits, selon le dernier rapport euh, du Haut euh, Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés CR. Retenez que près sont accueillis par les pays de la moitié sont des enfants. Certaines études prévoient 50 millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2050. C'est la fin de cette édition d'information. À partir de 8 heures, vous aurez euh, euh, Adama Ndione pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien. Adama Ndione. Euh, ci kaddu gi ñaareelu pàcc sud du matin dañ koy daal di nag euh, doore ak euh, lettre saisine bi nga xam ne nag ministre santé daal nañ ko xooy rek jébbal bàyyi ko ci député Aïda Mbodj ngir sàkku nag nañu yore wàllu Covid 19 bi ci wàllu koppar gi ak gestion bi yëpp lettre boobu nag la ñu ne terseegul ca conférence bu président yu assemblée yooyu lee ndax nag amal nañu ab ndaje ni ki démb loolu nag honorable député Ndiéma Dièye Ba daal di koy xam ne moom présidente lu ak commission ya ca assemblée nationale waaye ñaawlu nañu mën menace yi nga xam ne nag def nañ ko jëmee ko ci kii di euh, député bi ñu teewlu ay leeralam moom Dié Madiaye euh, Ba. ci micro Mamadou Camara. honorable député Aïda Mbodj mooy rafetlu taxawaayam la ci assemblée nationale. koo xam ni vraiment liggéey ba tax mu ñëw assemblée mu ngi koy doxal ndax askan wee ko fa taaj. lii mu wax yoon moo ko ko may. ndax article 93 bu règlement intérieur bu assemblée nationale moo ko may tey lu mel nii mu mën ko def ni ngeen ko déggee man tam noonu laa ko déggee te man membre conférence président laa te démb conférence président amoon na waaye ci li ñu ma doon wax waxuñ ma ni jot nañ lettre lettre bi mën na am ni lettre bi dem na mën na am ni lettre bi demul waaye nag lu ci mënta nekk su fekkee ni jaarale nañ ko ci yoon te yaakaar naa ne honorable député mi nga xam ne def na ñetti mandat député yaakaar naa ne xam na li ci yoon wax ba dina ko jaarale yoon ba lettre ba jaar fa mu war a jaar bañ war ko doxalee nañ ko war a doxalee ndax it loo gis teg ñu di ko def ci assemblée nationale ci mu ngi sukkandiku ci règlement intérieur su fekkee ni respecté na règlement bi ak loi bi naa ni président assemblée nationale incha allah dina ko def ndax tey muy ministre yi muy président de la république ñoo ñëw jàkkaarloog ñun waa assemblée nationale ci cadre loi de ratification bi wax ñu li nga xam ne moom lañ leen joxoon muy loi d'habilitation bi lan lañ ci def ak naka lañ ko defee mais menaces yooyu mu recevoir moom man mën naa ko recevoir parce que ñun ñun ay député lañ kenn da ngay wax loo xam ne xëy na du neex nit mu menacé la xëy na ba mu ko defee rëccu na ko waaye li am solo mooy euh, nee na saisir na ministre Aly Ngouille Ndiaye ñuy rafet aussi vraiment ministre Aly Ngouille Ndiaye ci accessibilité am parce que nee na ba mu ko yónnee message la ko tontu ni taxawaay ba ci état war a taxaw nañ ko ci taxaw pour protéger ko ñëpp ñuy rafetlu ma accessibilité ak disponibilité ministre Aly Ngouille Ndiaye te yaakaar naa ni ci état de droit la nekk menace taxul ñu ni dinañ ko gaañ wala nañ ko def dara bon nag yaakaar naa ne eh, gouvernement Sénégal nañ ci taxaw ba protection ba war ca moom en tant que député ñu def ko ci. Eh, loolu la ñu yóbbu Fatick ak euh, fukk ak juróom-ñetti cas yi ñu amee ci wàllu mbas mi ba tey euh, gis nañ ne nag fukk ak juróom-ñeenti daal nañ koy rek enregistré ci. Euh, barab bu ñetti département yi ko séq yëpp ne ñu nag kenn moo ca daal di nag euh, faatu ba tax ñu daal di def ab xayma euh, ci juróom-ñetti district sanitaire ya fa ne nañu juróom benn yi daal bu ci ne daal di nay dalal li nga xam ne nag mooy benn ci ku amee feebar bi wala ñenn ñi ñu amee feebar bi région médical ba fas yéene taxaw nag ci mbir mi Fatick Ngor Sarr. Mbas maa ngi wéy di lawoo ci biir diwaanu Fatick donte sax ay na ay jéego yu am solo bu comité régional ci wàllu épidémie yi ak autorité locale yeeg politique yi ak partenaires yi def jëmale ko ci wàllum jumtukaay yu ñu war a mën a xeexe mbas minimal rapport bi nga xamante ne moom la médecin chef régional joxe li ci feeñ mooy fukki nit ak juróom-ñett yoo xamante ne feebar bi dal na leen ci ñetti département yi nekk ci diwaan yi juróom-ñetti kaa yi doon li ñuy wax kaa importé ci ñetti ci seen biir bàyyeekoo ci réew bu nekk ci région ouest africaine am juróom ñaari kaa yoo xamante ne kaa contact yu mujje positif ak koo xamante ne mu ngi ñàkk bakkanam ci biir këram juróom benn ci juróom ñetti district sanitaire yi nga xamante ne moom la région médicale géré ñëpp it jot nañ ci mbas mi muy district sanitaire bu Fatick bu Gossas Jaxaw Passy Sokone ak Diofior district sanitaire bu Foundiougne ak bu Niakhar rek ñoo ci jotagul fukki cas ak benn yoo xamante ne mbas mee leen dal itam ñu ngi leen détecté ci biir district sanitaire bu Fatick juróom yi bàyyeekoo ci biir commune bi juróom mbenn yi doon ay élèves gendarme yu nekk ci école des sous-officiers bu caserne général walifay Faye ñaati nit jot nañu wër nag fukk ak ñaar ba léegi ñu nekk ci centre de traitement épidémie bu hôpital régional bu Fatick yeneen ñaar yi nekk ci CTO e bu hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack ba léegi itam amul kenn koo xamante ne jot nañ ko jàllale ci beneen diwaan. prélèvement yi ñu def ci fukki nit ak benn yi nga xamante ne jotoon nañu laale ak ki nga xamante ne mu ngi feeñ ci Senghor te mu bokk ci district sanitaire bu Sokone ak prélèvement yi ñu def ci yeneen fukki nit ak juróom-ñett yi nga xamante ne jotoon nañ jege kii nga xamante ne moom moo ñàkkee bakkanam ci mbuubaan benn quartier bu nekk fii ci biir Fatick ba léegi ñu ngi leen di xaar mbir mi nag jéggi na dayoo lool fii ci diwaan wi Ngor Sara Fatick FM. Ngor CUSEMS eh, ak G7 bu Mbour ñu ngay sàkku ci jàngalekat yi ñu daal di boycotté eh, dem ci l'école yi bu fekkente ne nag matuwaay nguur gi war a jël yépp ngir ñu delluwaat eh, ci jamono mbas bi jël ko ba tax ñu jàpp ne bésuk ñaar fukki fan ak juróom weeru juin bi nguur gi jël daal ba décision la boo xam ne ñoo ko toog rek daal di koy rek xayma ndax ñoom itam kenn boolewu leen ci tax nag ñu ci yëkkati seen i kàddu jàpp ne eh, musiba ak mbas mi jógu fi Jokal Faye mooy secrétaire général départemental bu CUSEMS su coordonnateur bu G7 itam ñu déglu ko ak Babacar bi nga xamante ne ni état du Sénégal programmé na ko pour ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi ñu nekk dañu bëggoon leeral ci bopp sénégalais yëpp ci bopp jàngalekat yëpp ci bopp citoyen yëpp yi nekk Sénégal wax leen ni position syndicat yi bu CUSEMS ak bu g position yi mosta changé état du Sénégal moo ñu employé moo moo jëloon décision le deux ne day ubbi ay école am dem ba ci biir mu gis loo xamante ne nii xëy na moo tax ba mënta ubbi école yi mu repousser date bi moo jëlaat décision mi ne day ubbi école yi le ñun mënuñu dara budul en tant que suñu employeur bu ñu woon ne ñu dem leen liggéeyi mënuñu dara budul dem liggéeyi waaye nag dinañu exiger que protocole sanitaire bi nga xamante ne nii moom la état bi teg ci table bi te ministre de l' éducation nationale na ci bu jàngale ñun dinañu respecté loolu nga xamante ni moom la ministre bi wax à la le ñu ngi ñaan jàngalekatu Sénégal yépp ku ci ne na nga taxaw ci sa poste di xaar ñu sone nga dugg sa classe bés boo seetloo nag ni protocole bi am na lenn lu ci manqué am nga droit nga respecté sa décision ministre bañ a jàngale ñun en tant que syndicat décider ubbi école mbaa tëj école moomuñu ko yeyoowuñu ko état moom la loolu yeyool état moo jël décision ubbi ay école am moo jël décision nit te dégluwu ci kenn mbaa bu dégloo ay nit it mais déglu boo xamante ne nii teniroo kont ci li ñu wax la di entêté wu ne day ubbi ay école ah ñun mënuñu budul suivre ko mënuñu budul accompagner ko waaye di wane ni bés boo demee ba nga xamante ne ni ubbite école bi échoué na bu kenn wax ne ni jàngalekat yi ñoo tax ba nga xamante ne ni njàng mënta am mbas mi jógee gu fi na mu fa nekk woon ba ñu tëj école yi def fee gën a nekk ci condition yu gën a miti Eh, ñoo daldi dikk commerçant yi fare UNACOIS e yeesal ak lañuy ñuy sàkku ci eh, teg loxo yenn ci sachet plastique yi di mbuus yi eh, te ministre environnement daal di indi dogal bi ni mel ñeenti ñeent fukki ton yéen ca daal di toggagum loxo te mu dikkee leen téeméer ak ñaar fukk ci ay Euh, millions ak yeneen yi nga xam ne nag euh, dañoo daal di teg loxo ay conteneur conteneur yu bari sax ndax téeméer ak juróom fukk yi tegal juróom benn daanaka juróomi milliards ak genn wàll la commerçant yi di daal di sàkku nag ay waxtaan yu daal di koy amal ak ministère bi kii di Cheikh si Cheikh aussi Cheikh Cissé mooy président bu UNACOIS Yessal ñu déglu ko ak Amadou Moustapha Dia. Karim Sall nag mën a luwaa la yor moom su xasee yor luwaa day appliqué mu xëy rek ne. bépp nit bu fi doon di jaay mbuus fii ci réew mi da koy lakk loolu nag waxtaan nañoo bind nañ ko lettre waxtaan nañoo moom bëgg ko war solution parce que ñun loi duñ ko contre ñun dañuy respecter loi parce que man ak Karim ak keneen ñoo yem ci loi ñun ñëpp loi mu nekk suñ kaw waaye nag bu fekkee da nga tàmbali dara am ñu la wutal solution dangay ngay seeti leen nanguwul loolu ñu tàmbali waxtaani ñu dégg ko ci dëkk yëpp dégg ko Thiès dégg ko Tambacounda Kaolack Kédougou dégg ko Ziguinchor dégg ko également Sédhiou dakaar gis ngeen yéen man ni ngeen ko gisandoo amul marché bu mu des di ramasser mbuus yi loolu nag moo tax ñun tey ñu wootee conférence de presse président suñ ko wooyee danañu jël suñ ko soxlaa danañ ko gis mais moment bi nga xam ne ay audience am joxeegu ko loolu moo tax ñu def conférence de presse pour yóbbante ko ko pour presse bi wax ko ko mu xam ne Karim Sall dafa tëj ay buntam te mi ngi rey suñuy commerçant loolu duñ ko nangu loolu moo tax ma def conférence de presse parce que bépp ministre bu ma bind dana ma tontu ku ma ñaan audience nga jox man damay régler problème moo ma gënal def conférence de mais comme kii moom dafa ne loi yore bëgg a rey samay membre danaa wax ak àddina ñu <clears throat> te ñun bëgguñu lu yàq réew mi mais mënul jël ay milliards di ko lakk relance économie bëgg a déebu ak Amadou Hott moom mu xëy di bëgg a lakk économie loolu mënuñu ko nangu tey mënuñu nangu ëllëg <clears throat> cinq milliards ak genn wàll mais kenn mësu ko gis moom xamul luy milliard bu ko xaman du ko wax pour lakk ko xam nañ ne daal suñu wooyee ñu wutal ko solution à loolu du nga nangu mukk ci àddina mu toroxal commerçant yi moom di tedd du nga nangu ci àddina la fas yéene dem wóor na ma wóoral yàlla le président Macky du ma wax ne danañu recevoir parce que commencé wut mais xam naa ne dana ko wax mu recevoir bi suñu recevoir solution dana am ndaxte ñun duñ ko ne bàyyi loi bi mais mën nañ ko indi solution boo xam ne bii li muy dana ko am commerçant yi du ñu problème solution bi mooy li ñu bëgg premièrement recensé ko jël milliards yooyu delloo ko commerçant yi jël seen marché yóbbu mun ko dee lakk wala ñu di ko xam ne réew mi dootoo fi gis mbuus ñun ñëpp ñu nekk ak moom di xeex mbuus yi kenn duutu fi indi mbuus kenn déedéet ko ne tam am nañu ñoo xam ne dañuy jël mbuus yi yoo xam ne daf séerul dara dañ ko ci def duñ ko nangu mukk ci àddina jaral nañu lu nekk ñu dem ci jigéen yu commune bu Nioro foofe eh, département bu Nioro euh, fukk ak juróom ci ay commune daal di nag dajaloo ngir daal di defar ay junni junni masque daal di koy séddale ñi nga xam ne eh, soxla nañ ko te seen loxo jotewu ko xew-xew bi nag ñu ko doon amal ñu doon jébbale euh, masque yooyu la ci teewaayu préfet bu département bu Nioro ak nag njiital euh, dëkk ba di Jaraaf ba Kaolack Mamadou Camara. jigéen ñi nekk ci département Nioro dajale nañ ay masque yu bari loolu nag mi ngi am ci teewaayu préfet bu département Nioro di Abdoul Aziz Diagne honorable député Jéema Ndiaye Ba moom mooy point focalu jigéen ñi nekk ci département Nioro. initiative bi nga xam ne madame la ministre de la femme de la famille ndey sali Diop Dieng am na ko ci gën a fësal taxawaayu jigéen ñi ci xeexu mbas mi madame la ministre bi mu defee initiative bi dafa tànn ay ndaw yoo xam ni ñooy nekk ci région yi ñun ci million masques yi ñu waroon joxe Sénégal ñun département Nioro sasoon nañ ñu fukki junne ak juróom-ñaar ak juróom téeméer ak fanweer romb nañ ko ba am euh, fukki ju ak juróom-ñeent yu teg juróom-ñaar téeméer ak lu topp naa ne ñun lañ ñu sasoon romb nañ ko suñ koy romb nag dafa fekk ni ànd boole xool yi moo tax loolu ñu mën ko ñiñ koy jox ah, communes yi yemuñ ndax di nga gis commune boo xam ne ñaar fukki dëkk la am ak ñaar am commune boo xam ne am na juróom benn fukki dëkk ak juróom benn cërëb ba tax na ñi am ñaar fukki dëkk ak ñaar lañ tollool jox nañ leen ko ñi am ñaar fukki euh, dëkk ñi am fanweeri juróom fukki dëkk ak nangam wala juróom benn fukki dëkk ak nangam ñoom itam lañ tollool jox nañ leen ko te naa ne liggéey la bu mucc ayib boo xam ne dañ ci waxtaan ak ñëpp ba génnee li ñu génnee tey dañ ni am na ñoo xam ne il faut ñu jalgar leen seen cëru bopp muy ñi nga xam ne waaye laago yi la waaye laago yi bi ñuy joxee pour masque yi dañoo am taxawaay bu mat sëkk ba ñooñu aussi rafet na ñu delloo leen cër muy jàngu bi muy euh, jàkka yeeg jumaa yi muy bërëb yi nga xam ne dañ fay dem di fa fayeeku wala bërëb yi nga xam ne dañ fay dem ci seko yeeg yooyu pour jël ay jiw ñoom askan wi rawatina ba ci booru frontière ba pour diyee nit ñi ci loraange yi nga xam ne mbas mi mun na koo indi Kaolack Mamadou Camara Sud FM Mamadou Camara fële ca ñaani nga euh, foofee nag Euh, école ba ñuy wax euh, Samba Gueye ay def lu ñaaw ñoo fa daal di nag euh, juux daal di koy dajji lépp li nga xam ne nag jëm na ci lañ leen jëbbaloon ca cantine scolaire ba li ci mel ni ay téeméeri téeméer ci litre diwlin daal nañ koy rek yóbbu photocopieuse ba fa nekkoon itam daanaka bàyyi ñu ca dara Babacar Sow. école primaire Samba Gueye nekk ca Nianing ay Samba booy dugg nañ fa sàcc fa lu toll ci juróom-ñetti téeméeri liitaru diwlin joo xam ni dañu ko waroon jëfandikoo ci cantine scolaire bi ñu dencoon ko ci ab magasin bu nekk ci l'école bi am na machine photocopieuse boo xam ni itam dañu ko sàccaale suñu sukkandikoo ci directeur l'école bi Mamadou njaay ci li mu yëy yàbbi nee na l'école bi amul gardien ndaxte seeni koppar matul machine photocopieuse bi ñu ngi ko jënd woon lu toll ci juróom-ñetti téeméeri junni di loo xam ne li metti na directeur l'école bi lool sant yàlla ndax ndaxte ceeb bi nga xamee ni moom la ñu waroon a togg ci cantine scolaire bi këram la ko denc l'école Samba Gueye di ñaareelu bërëb bi jàngalekaay bu nekk ci dëkkub Nianing ci commune bu Malicounda l'école la bi nga xam ni yàggul benn yoon coow toppoon na leen ndaxte président association parents d'élèves bi dafa daloon ci kaw benn metre arabe ba gaañ ko di loo xam ne lii ni woon na kur ci dëkk bi ba tax sax ñi nga xamee ni ñooy jàngale ci lekkool boobee yëkkati wala ay kàddu ni daal ñi ngi ñaan kaaraange ci l'école primaire Samba bu Nianing Babacar Sow dañ ca jokk fii ci Mbour pour Adama Ndione euh, mbokk xarit yi fi lañu ñuy yem ak ci xibaaru suba gi rédaction bi dina dikkaat ci midi ak benn waxtu laata boobu 9 xibaar yi ci tënk buñ ca noppee seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam mbokk xarit yi ñuy déglu gërëm leen sant leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu yendu jàmm.